bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf alanbiyaai walmursalin sayidina wa moolana muhammadin al amin wa ala alihi wa ashaabihi wa asna xadimihi sawi ridwaani wa tamkin bokk yi ginnaaw bi ñu sante suñu borom julli ci Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di sant suñu borom ndax tey jii yàlla dogal na ñoo ngi fii fi Mayumba Mayumba nag ci taarixu yoonu murit ak jaar-jaari sëriñ bi kenn dootu ko laajte ndax fu ñu ko tuddee gone yu ndaw yi sax xam nañu Mayumba mooy lan yàgg nañ koo dégg maayumba nag di dëkk boo xam ne mu ngi nekk ci réewum Gabon ci wàllu ci wàllu bëj saalum gi la féete eh, dend itam ak ni ngeen ko séene ci ginnaaw géej gi nga xam ne moo di océan Atlantique bi eh, waaye itam eh, moom géej googu di maanaam sësaloo ak li nga xam ne moo di li ñuy tuddee dexuk baaño dexuk baaño Euh, mooy dex gi ngeen di seen nii ci seen ginnaaw <coughs> euh, muy dëkk boo xam ne kon dëkku euh, dëkku ndox la bu xaw bu bu enclavé rawatina ci jamono yi nga xam ne ci la fi sëriñ bi di ñëw ndax booba diggante diggante ba waxtu wi rek ñun ñi nga xam ne bi ñuy ñëw ci oto la ñu jaar ba agsi gis nañu bu baax a baax coono yi nga xam ne donte sax kenn maanaam ñi mu tudd coono ndax li li nga xam ne moo ñu tax a jóg xam nañ ko bu baax waaye gis nañu daal. xëy na yenn jafe-jafe yi nga xam ne dund nañu ko ci wàllu yoon wi te léegi sax wax dëgg yàlla macha allah neex na lool ndax man mii di wax ak yéen ci atum 1995 ci laa fi njëkk a ñëw ci janvier ba te booba weeru koor la woon booba daanaka yoon wi piste rek la boo xam ne nii da ngay eh, yéeg ko wàcc rek ba agsi kon léegi moom fa tabarakallahu neex na lool sant bu baax a baax dëkk bi nag di dëkk boo xam ne bi fi sëriñ bi di ñëw booba ni ñu ko waxee booba ñëw fi yombul waaye ci yoon ci yoonu ndox la jaar ba ñëw fi mooy ginnaaw bi nga xamee ne Eh, jóge na Libreville def fa ay weer nañ ko waxee woon foofa daal di fay jóge nag ñu daal di koy indi fii ci ci réew yi baa weli dafa doon wax ne fi nga xam ne mooy dëkk bi ci boppam xeet wi fi nekk sëñ bi di leen tudd ci ay mbindam muy baafali ji muy wax mooy li ñuy tuddee les weli eh, baa nag ci seen làkk ñoom waa maanaam xeet wi nga xam ne ñoo dëkk fii te yaatu lool sax du Gabon rek dem na ba Afrique australe muy ñuy tuddee xeetu bantu bantu la ñeen tuddee ñoom bu nee baa ci seen làkk mooy lee lee nangam ci misaal la ñuy wax baa wili muy le wili di wax baa punu le di wax baa lumbu même fi dëkk bi sax am na beneen xeet bu fi nekk bu lumbu ñoo wax baa lumbu euh, ak yeneen yeneen ak yu bari yoo xam ne am na moo tax sëñ moom baa fari lay ñu ñëwoon Mayumba nag ci mission catholique bi nga xam ni cathédrale la boo xam ni bu tëjula la sëñ Tuubaa am fi juróomi at yoo xam ni nee na bi mu fi ñëw mi ngi mel ni weeru fukki guddee ñaar waaye bi muy dellu daa mel ni jant. ngir lu ko waral mooy jaamu yàlla wéetal boromam ci diggante tudd yàlla ak di ko wéetal ci fànn yëpp ak di julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci mbindam yu siiw yooyu nga xam ni am nay xasida yoo xam ni euh, ci batu rek la ko def yenn yi tamit mu def ko ci ibaada mu mel ni nag am nay xasida yu ràññiku yu mel ni jaalibatu muraqib fii nu nekk la ko sëñ Tuubaa bindee woon sànni ko ci dex gi di la bañoo biir bu yàgg ni day toppandoo imam Jazoli ba mu toogee ba mu yàgg sàndal bu naan Musaak ci quartier gi foore ko foofu andi ko sëñ Touba fii mbind ma tooyul raaful dégg ngeen na ko sëñ Musaa sëñ Musaa Ka waxee ne Bambaay aarif léegi nag bi mu fi ñëwee def na fi juróomi at lu ëpp ci tukki gi fii la ko def juróomi at yi ñu fi ñëwee biñ fi ñëwee te ànd ak Cheikh Motoda ci atum 2000 booba euh, am na am na benn labbe tubaab bu ñu fekk bi ñu koy laaj xamal nañu ne sëriñ bi fii nga xam ne moo dend ak dégg mission catholique bi fi la amoon néegam boo fii itam soldaar yeeg maanaam commandant beeg ak labbe yeeg dégg nga révérend kii euh, maanaam pasteur yi fi lañ nekkoon ndax ndax am na benn bâtiment bu ngeen di seen ne ci seen wàllu ndeyjoor foofa euh, fa lañ daan former pasteur yi ci la nga xam ne labbe bi leeral na ko booba itam saaru internat la woon boo xam ne buñ ma sànni ñëw dañ fiy nekk ñu leen defal lu mel ne séminaire di leen di leen jàngal ak leen formé boobu labbe bu mag bi nga xam ne moo nekkoon ci Luwango ci Congo nga xam ne soriwut fii lool ñu ñu koy wax Kari moo daan jóge foofu di ñëw fii eh, di di nga too loolu moom labbe boobu sax ci livre Omar Ba bi gis ngeen mu koy tudd di wax ne chargé woon nañ ko mission spéciale ci sëriñ bi donte leeraluñ maanaam dëgg-dëgg lan moo nekkoon boobu mission kon sëriñ bi ci biir quartier gi la ne woon dend ak soldaar yi dend ak eh, labbe yi dend ak mission catholique bi Euh, maa ngi fàttaliku ci at moomu labbe bi bi ñu koy laaj muy wax ci sëriñ bi di wax fi nekkoon ak yooyu ak ni mu fi nekkee woon am na benn cloche bu ne fii boo xam ne boo ko xoolee en 1897 lañ defar cloche bi nga xam ne kon bi mu fiy ñëw fekk na fi sëriñ bi la fi fekk ndax sëñ bi ko fi jiit ndax sëñ bi jàpp naa ne bu fekkente ne ay weer la def Libreville muy ñetti weer jëm juróom benn weer léegi bu ñu jàppee juróom benn weer yi kon mooy ne bi mu fi ñëw fekk na 1895 yi jeex na ba bañ dugg ci 1896 yi mu ñëw fi euh, loolu kon mu def fi lu ëpp ci li mu def ci géej gi bi bi labbe bi wax loolu ba mu yàgg maanaam kolos boobu sone mu ne dem leen ngeen laaj kolos bi boobu moom dana leen wax ni fi Cheikh Amadou Bamba nekkee woon ndax moom ñoo fi bokk nekk sëñ bi nag juróomi at yi mu fi def juróomi at la yu metti lool ndax ku gis fii ni mu mel léegi nii sax tabaarkàlla nga xam ne am na ay dëkkuwaay am na ay hôtel ñun bi ñëwee ci hôtel la ñuy di dugg ci hôtel yu ak climatisé waaye bi sëñ bi nekk nga xam ne booba climat bi taw bi bari bi ak li ñuy tuddee ay godd ak mutu mutu yi ak yi nga xam ne day matt yooyu bari woon na fi lool sëñ bi doon jànkonteeg loolu lépp te kenn waajalu ko woon comme ñoom tubaab bi ni ñu daan waajale seeni seeni seeni colon ndax colon yi fi daan ñëw buñ fi daan ñëw dañ leen di waajal ci col gi dëkkuwaay yi ci lekk gi Eh, ci ci lépp rek ci wàllu médical ba nga xam ne bu ñëwee danañ mën a jànkonte rek maanaam climat bu humide bi humide lool barim ndox lool barim ñax lool am na ci ñax yi ñax yoo xam ne rek dafa am tooke am ci ñax yoo xam ne dafa dafa dafa ñaw mel ne lañ set nga xam ne dafay dagge yooyu yëpp sëriñ bi di jànkonteeg moom waaye téewul rek yàqalu ko woon dara ndax loolu la bëggoon moom li mu bëggoon mooy li ne woon géej mooy wéet mën a jaamu yàlla mën liggéeyal sallallahu alayhi wa moo tax juróom juróomi at yi mu fi def nee ci laa mujj mel ne ab jant mu doon barab bu yéeme boo xam xew-xew yu rëy am na fi ci barab bi muy Mayumba fii sëñ Tuubaa sax na fi bu tubaab bi yëngalee cloche bi moom sëñ Tuubaa day jóg waaxu waaxu mu tàng jublu nii kàbbar wax allahu akbar ci kaw xeer wi day yënguti rëg-rëg yi ba tubaab bi dañuy daw tëj seen biir nekk loolu léeg-léeg sëñ Tuubaa réer leen ci jamono ji yàgg yoo xam ni kenn du xam fu sëñ bi ne te ñoom dootuñu ko ñemeetee seet ndax dañuy jàpp ne buñ ko gisee bu mer ma dañut suuf si mën naa yëngu ñu ñu fatu ci seen neeg bàyyi ko loolu mu di ci réer ba benn jëmmi jamono joo xam ne sëñ Tuubaa réer na ci loolu ay weer yoo xam ni xamuñu fu mu ne ba ñuy bind lettre senegal ne ni sëñ bi bàyyi koo na fi te booba ñoom umpale guñ umpale fu sëñ bi ne rek moo tax ñu koy wax waaye sëñ bi ci boppam Xaadimu Rasuul daan dox ci kaw ndox mi di jàll di dem ba dootuñu ko gis muy génn ci wet yu ne nga xam ni sababu li indi sëñ Tuubaa fii moom sëñ Tuubaa wax na ko boo ko mosee wax bala tubaab ba jàppee mu ni déedéet ba ma jàppee tubaab man maa siñante woon ak yonent bi alayhi saato wasalaam ab liggéey boo xam ne liggéey boobu bu bu bu yéwénul dara dootu yéwén liggéey boobee nag mu doon des si fii fi mu ko doon defee sëñ bi mu nu foon a indi boppam ci saayir waaye tubaab bee ko mënoon tubaab bi ci boppam nag suñu borom seen i njort wóor leen ñu ni dañ koy jëli far dajeeg moom jéewal moom sëñ baa mu bind bilaahi faraxtu nasaara jéewali waxey doo xat an bilaa tanawuli lool wone na ni diggante tubaab beeg sëñ bi moom te jéewal la jeexe ñoom jéewatuñ ko jàpp mënatu ci moom dara waaye sëñ bee leen jàpp nag fii itam fi la sampoon ñeenti bantam yooyu nga xam ne ci buntu néegam la ko defoon defoon ko mu nekk jàkkaam commandant bi ñëw na nañ ko buddi santaane ñu buddi ko biñ ko buddee fonctionnaire sénégalais bu fi nekkoon bu ñu wax yelli sëy ñëw di xuloog dégg nga commandement boobu li ko commencé ci ba jant bi di a so ñuy xuloo nee na suñ bi nee na bu doxul woon seen diggante kon ñu xeex fekk na boobu suñ ko ndigal ne ko ne taalif xasida goo xam ne ko tënkee rabbana axrijna min hadihi alqaryati alzalimi ahluha wajal lana min ladunka nasira ci suratu nisa euh, euh, mu daal di mu daal di mu daal di koy mu daal di ci woy ak xasida goo xam ne mi ngi ko ubbee raditu an il taala allazi rabba fuaadi wa agnaani bihi rabba di won di wone tawxiidam ci boromam ak xolam bu sedd koo xam ne yaa ngi ci digg natt yu mel noonu di jànkonteeg yoonu yooyu waaye boo jàng xasida gi da ngay gis ni mu bàyyee xel boromam Euh, mbégte mi mi am ci boroomam wéetal gi mu wéetal yàlla day feeñ ci xasida gi xasida sëñ sëñ Dagana bi mu ciy ci xasida def ne xasida gu am la fi dafi'i wal jalbi waaye nag fal yattaqillaaha mustaamiluha ku koy jëfandikoo na ci ragal yàlla bi mu woy xasida ba agsi ci lahuktub salatan ma salaamin bi alihi wa ashaabihi waj'al bihi masjidi rahba ci la suñ boroom xamal ko ne ko nangul nañ la li ngay ñaan muy ñaan yàlla daal yàlla may ko jumaa ju yoo xam ne dana wuutu ñeenti bantam yooyu mu ne ko nangul lañ la ko da nga dellu ci réew ma te boo delloo da nga gis jumaa jooju moo tax bi mu ñëwee njaareem ba tabax jumaa njaareem ji ba ñu ubbi ko yëlli sëy moom yi ki nga xam ne moo doon commandant bi euh, yëlli sëy moomu ñibbi si dem ndar jóge fa ñu siyaare si sëriñ bi euh, sëñ bi ne sëñ Madla bi ne àndal ak sama gan gi mu dem mu visité jumaa ji bi mu ko visité biir ak biir ci kaw ak suuf ndey jor ak càmmoñ bi mu ñëwee sëñ bi ne ko waa yëlli Euh, sama sama ñeenti battee nu mu def ak sama jubaa ji mu ne ko subhanallah xanaa sore lool nee na mu ne ko loolu laa jublu ci saaqa li gayrillahu fii maa yumba maa saa qalbiya wa alal janda yàlla matal na ma wala dàqal na ma la naqari woon sama xol mooy buddig ñeenti bant ya waaye yëkkati na sama wàll yi itam mooy yëkkatiku soroor yi jaareem ak sax soroor yi tubaa yi déelee ma ne ak it soroor yi nga xam ne mu ñëw ginnaawam muy soroor masalikul jinaan yi yeeg soroor yi montagne sent ji yeeg ba ci soroor yi nga xam ne incha allahu taala jàpp nañu fii fi maayam ba dana fa dee dégg dana fi am ak yeneen ak yeneen ndax Sëñ Tuubaa moom lépp lu mujj a ñëw ci mbiram rek mooy a yéeme kon yooyu daal ne xew na fi bind na fi it ay xasaayit yu bari yoo xam ne am na ci yoo xam sax dafa am xew-xew yum yum yum àndal yum lëkkalool na mën naa ko tudd ñaar rek benn bi mooy ñaari ala inna nii yi muy miimiye bi ak xaafiye bi ala inna nii arju ak ala inna nii uh, usni ala ilni usni la jëkk taalif bu ko taalifee fekk booba dafa am nee na ku ko dig ci bokk yi ne woon fii koo xam ne euh, budul budul Sénégal yi déggoon na wolof tuuti da koo digg daal misk maanaam parfum dig ko keneen sëñ bi nee na ba bi nga xam ne dig bi jot na donte yaakaaruma sax moom ci ñoom lenn luñ may jox euh, yàlla rek la yaakaar ma dem di ko jëli bi ma ñëwee ba jub kër gi dégg ko muy xoloo ki mu digoon moom itam Euh, ci ci même digg bi ndax da koo digg loo xam ne dana ko boo ñuy wax sàng ma jox la ko waxtu woo mu ñëw jox ko ko ma ne maa ngi dégg ñuy wax ay wolof yoo xam wolof yi setut waaye dégg ma dégg wolof te toog naa lu yàgg ci dund bi dégguma koy wax wolof fàttali ma samam réew ba noppi it xam gi ma xam ne yàlla rek moo mën a diggee matal ab diggam te ma wékk sama yaakaar ci ci ñoom doomu aadama yi ci yàlla rek laa koy dénk ma daal di yooyu nag yëngal ma nag ma daal di sama sama daal di taalif xasiid ak ala innani usni ala xayri munami wala ashtaki lil xalqi min faqdi anumi man daal yàlla laay tagg yàlla laay kañ yàlla mi nga xam ne mooy ngën ji aji xéewale waaye du ma jàmbat mukk samay soxla wala samay aajo ci doomu aadama yi alaa indi ne arjo bi nag moom bi mu koy taari boobu dafa woor weeru koor yi ba koor gi jeex amul lu mu génnee murum koor mu murum koor mu ne su ma ko amoon du ma ko jox mu génn ci ci ab bayaal ci ci ci ci maanaam ci dun bi daal di julli julli ay dem ñaari xale yu jigéen dox ba tolloog moom taxaw di ko seetaan su kàbbaree ñu ree bu jàngee ñu ree nee na ma sëlmal daal di sant yàlla wax ko ne ko nag li nga ma digaloon li ma ci man def naa ko li ma ci manut yéene naa ko nanga ma ko fay wala nanga ma ko nangul waaye maa ngi taalif xasida goo xam ne kon mooy wutu lool daal di taalif xasida rek ala innani arju min al waasi al xaq bi jaahil muqaffa naasir al xaq bil yooyu daal ak jaalibatul maraaxib ak euh, la gis boobu mu bu fi la ko yeesale ak yeneen ak yeneen di xasida yoo xam ne bari na lool nee na taalif na fi sax boo xam ne sax da koy da ciy wax yu bari ci ay xarbaax yu ma am boo xam ne tuddul tudd téere ba waaye nen téere la boo xam ne yàlla fay na ma ci bi ma taalifee nong gi ko nangu jihaati way jihaati yeeg sant ko way sant yeeg tudd yàlla way tudd yàlla yeeg yëpp tubaab yi biñ demee ba amatuñ ji moom pexe jàpp ni ñoo ko jàpp moom sëñ mu jàpp leen kenn ku ne xam na ni jéewal koo jëli dem mu ne damay fanaan nga toog fanaan am na lu xew keroog jéewal la mbir ma xew